sin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu guddeeg bëccëg nu jublu Seyxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fàllilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay ji na mbàkke Seex Fallu fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariku laay alaaji Fallu yaay rasulullaay dem nga fa Makka fam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga nga ni li yàlla fam nga nga ni li Bàmba hamdulaay sareetu haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng bay ba def xalifa def moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji lay mooy xalifa moo biyoonu makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu del siyaare Amadul Makkiyu del siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba ci Fallu añ na fa sànni jam la fon doj wa dem Arafat delum la dem na Safa dem Mata Muzdalifa taxaw makaama dem na langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir kaaya waa Makkata yaa bari ndam yaa am jaloore ndam a tiital mu ne su la ngañati yaa di suukar maa moom sa bari jël na ndam la bambani fallu laayi fallum yàlla alaci yam mbàkke soy ni jaayam bamba di baayam fallilu di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya yaa jara jaamu masin ba joona suubu dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant fallilu jóg leen taxaw nuy sant sayxi fallilu guddee bëccëg ñu jublu say fallilu yaaro ci mboolem lawlu yow fallilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallu fam nga jumaa ji xàll yoonu Mbàkke daagul dugal tariqulaay Alaaji Fallu yaay Rasulullaay dem nga fa Makka fam nga ni li lay alaaji Fallu yaa juboog li lay am nga nga ni li yàlla hubbu lay fam nga nga ni li Bamba hamdu lay saretu aqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëñ Moodu bu sa jeng bay ba di di alaaji moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka leen néew fa moo bi yoonu Madina xarnu bi naat na ay million sappee na moo bi Madina alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare Amadul Makiyu del si rahmatul mbakki del siyaare waa baqiya xabru tayiba siyaare kër njool makka xam barba ci falo añ na fa makka sànni jamra fon doj wa dem ra dem na safa dem na tama dalli fa taxaw makaama dem na langale fa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 yaa jara jaamu yaay borom yi layool masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fallilo leen taxaw nuy sant sayxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu sayxi ci mboolem law lu yow Fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géeju bi yi ay gi neex na mbàkke Cheikh Fallo pam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fallo yaay rasulullaay jam nga fa Makka pam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li am nga nga ni li yàlla hubbu nga nga ni li alhamdulilah sariatu aqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baa ab xalifa di moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare Amadul Mbàkkiyu dellu siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga bar ba Seex aj na fa màkka ba sànni jamra foon doj wa dem Arafa dellu umra dem na Safa dem Mata Muzdalifa taxaw maqaama dem na langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir kaaya waa Makkata yaa bari ndam yaa jaloore ak ndam a tiital mu ne su la ngañati yaa di suukar maama Musa Bali jël na ndam la bambani fallu laayi fallum yàlla la ala ci yom Mbàkke bu soy ni jaayam bamba di baayam fallu di biyaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya